Semerengo yëkkati na ndeke yoo weñ gaa nga bañee ca mbànjaxaan nga dëgg-dëgg turbine yéene kaay ne ma coow lu coow li ña doon wax naan ministère des finances ñoo sàkku ñu daal di publier rapport bi yéene kaay bi dee média bi ne ma déet demeewul noonu de rapport bi nga xam ne cour des comptes daal dina koy def ci nañu jëfandikoo fond force covid 19 bi ndeke yoo FMI ci boppam moo weñ loxol président Macky Sall ngir nag rapport bi ñu daal di koy xamle moom FMI mi nga xam ni barki démboo njaay moo ne courant bi nan ko yokk méngale yi ak jamono moom yéene kaay ne ma moo weñ loxol président Macky Sall ma ni la ngir ñu publier rapport bi ministre Abdou Karim Fofana ci bés bi la journée déet déet bu leen jaawale tribune yéene kaay ne ko may ma rek Abdou Karim maa ko ñaan may ma rek ma wax la dama ni FMI ci boppam moo weñ loxol président Macky Sall ngir daal di xool rapport bi lan moo ca nekk ban ca noppee ñu ne ko Sall ngaari lam tooroon na génn rapport bi naka ka askan yëg gis ko xam la ca ne yéene kaay bi dee média bi ne moo taxit ña nga xam ne dañ doon laam-laamee ndax mbir mi dana am ay poursuite am déet nañu tëri da force ndax ci boppam moo fas yéene nag topp mbagg ak mbagg ña nga xam ni ñoo sàcc ba jébbal leen yoon bu ca noppee nag mu topp leen mbagg ak mbagg ban àtte leen def ci ñoom la war turbine yéene kaay ne ma ñee ngay tëgg salsa ñeneen ñi di tëgg mbalax mu saf sàpp moom président Macky Sall fu mu cay féetee yéene kaay bi dee média bi ne ma en tout cas ay ñoñam def nañu rapport bi xamal sénégalais yi ne leen def nañu FMI ne leen nañ leen topp te ñooñee ay jege ñaale waa ji ñii di ay jëwrinam ñu ko jege lool ñeneen ñi di ay daaj yoo xam ne jege nañ jëwrin yi la sàll ngaari buur géde di def tribune yéen kaay mel ni ku naan maan bul sori ak man de xanaa troisième mandat moom président Macky Sall jegat-jega teewul ñun jëmee fenn fudul troisième mandat bi ab plan secret lay nas de di nu jaay muus moom président Macky Sall la daloon ivoirien ak watara moo ñuy dal loolu la bëgg boog en tout cas mu dal nu ab plan secret tribune yéen kaay ne ma moom la am te loolee nag sabab bi ne ma cell leen di may moom sàll ngaari ba nga xam ne nag waxtuk dépôt candidature bi moo jot mu daal di koy déposé gars yi xam ni nag léegi candidat la lu muy fekk conseil constitutionnel gantu wala jubal candidature am bi Walf Quotidien ne ma en tout cas Kader Boye moom daal di na yekk keteme Ismaïla Madior Fall daal di xam leen ni Ismaïla Madior Fall ab danger la ngir ay institution yu réewum Sénégal fu ne ma fii la taxaw daal di ne bu nu jaayee ñaari millions yu carte loolu ci boppam mooy def président Macky Sall candidat d'office yéene kaay ba ca kër gu mag moom Walf naan ñoom responsable APR ci boppam ñooy jëndal seen bopp carte yi te mën nañ ko nag carte yi ci boppam dañu koo wàññi jaayi ñaar million u carte du dara ci ñoom Walf Quotidien ne moo taxit Kader Boy nee na Ismaïla Madior Fall day caxat-caxatee suñu institution danger la ci Jama Badiane philosophe ak sociologue ci tribune yéene kaay ne yow président Macky Sall boo bëggee sénégalais yi yëgaat la ñu yëgoon keroog ba nu jëlee kan ba nee leen damay respecté la ma ñoom ci ñaar ci mandat laay yem daa nga gis jubilé bu raw bu kan ba coow li coow li mooy gaayee bëggul critique yéene kaay ne ma waxtu waaw suñu tali yaa ngi faat faat gu metti lool laas yéene kaay ma moo taxit ay mesures mesures yu am doole koy jël vox populi ne ma ay mesures yoo xam ne ni ki démb door na léegi woto yi wajaase 23 heures 5 heures du matin la ñuy daw l'observateur ne ña nga xam ne ñoo ca dëgëroon ni ki démb bopp dañ leen gaara ñu daal di taxaw foofu ba waxtu départ jot ñu daal di demaat yéeni kaay bi ne ma coowal porte bagage yi moom jeexul ndax ca boo maraîcher porte bagage yaa nga fa war ñu amal ab ndaje ci gaawu bii ñaar ñi moom moomoon bus si def accident ba ca kilo tay lañ leen di defeere vox populi ne ma yeneen mesure a ngi stationnement ci axe interurbain yi daal dinañ koy tere woto yi xam ne dañuy yeb ay nit léegi ci gare ceer wala parking yi leen di réserver la ñuy gaare gare routière yi cinq heures la ñuy tijji tëj vingt-trois heures yéen kaay bi ne ma woto yi nga xam ne dañoo chargé lu ëpp ñetti tonnes ak xaaj dañ leen di bloqué diggante six heures ak dix heures daal di leen di bloqué waat diggante seize heures ak vingt heures terelee nit ñu daal di gaare ci tali bi bëccëg ak guddee ci yam mamar surang ci yéen kaay bi ne dogal yi bëri na te diis na daañu xool nees def ba daal di ci andi ab riposte ndax gouvernement gi moo war a xoolaat boppam du da ngay dégg téel rek daal di ne damm na gis accident rek jëli mesure yoo xam ne mën na gàntal yow sax sab askan ko di jee mel ni ku samp laaj ci Amadou Ba kiyétii ma nga ca ñaar Amadou nga ca bu siliko ba ca scandale bu fond force covid 19 ba ma nga ca ba PM la boo xam ne ma xare ba waaye Amadou ci boppam amagul bureau bés bi le jour ne ci bi yokkutee gannaaw bu essence bi paas bi moom ma yoon Mbaye Amar njiital aftu ne moom téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya neeñu nañu yokku car rapide ya clando ya bi le jour na yokkal nguur gi joxoon ñu goxiwaat ko jébbal ko ko le soleil ngi koy layal turbine yéen kaay ne ma ca accident yi nga xam ne mi ngi bëgg na privé national bi dem investir ci dem dikk mooy dëgg C50 PN naan jëli mesure jot na appliqué leen ak gi ci war jot na ngir mën a nag andi kaaraange wi nga xam ne ñooy wajaase waaye tam daal di andil kaaraange seeni marchandise direct news moom daal di sampublaaj ndax nag nguur gi ci boppam mi ngi andil kaaraange ngi ab askanam les fa yéene kaay ne ko tegal foofu sa loxo en tout cas ma ngi koy andil nag nasaraan si am na contrat bu yees boo xam ne ña ngi ca war a exploiter terre bi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier gii lañ koy xaatim nguurug Sénégal nag SNCF la daal di tànn ci diirub ñetti at ngir mu exploiter terre bi yéene kaay bi ne ma ti APEX du ko xaatim de seen ci boppam moo ci représenté état bu Sénégal moo koy xaatim direct news ne ma boobu aw askanam moom Sénégal ñu ngi leen di tuñ fii ci seenum réew liggéeykatu guyaar yi ci boppam nekk ci port autonome lañ fa yéene dàq nee ñu daal cib lay dañoo war a yaatal port otonom bu ndakaaru cib société boo xam ni yàgg na fa xeex di grève moo ko andi foofu 2019 ak tey tey nag directeur ba di Mbàkke Sàmb nga xam ne ay téeméeri nit lay employé lan ni ko yàgg say nit able leen Mbàkke naan port ba daf ma utiliser tegal ma fi ab contrat fexe ba ma investir benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri million ci matériel tey ji nag contrat ba lañ bëgg tàbbal géej yóbbu nañ ba yoon yoon xamal ko ni fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier bii dañoo war a able lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ciy liggéeykat nar ñàkk seen liggéey léefa yéene kaay ne ma booba nasaraan sa xaatimal nañ leen contrat ñetti at ngir ñu exploité terre mooy yéene kaay ne ma boobu Sénégal ngi tàbbi ci beneen tiis moom paate jonn sunu assurance paate national moo daal di làqu ni ki démb ca France moom mi doon kàngam ci wàllu banque ak assurance day ni ki démb la génn àdduna l'observateur ni yéen a génn àdduna képp koo xam ne délinquant nga di def naka sodul noonu sàcc tux lu bon dëkkee ñaawteef ak di toroxal say waajur yéene kaay bi ne ma gannaaw enquête bi waajur yi lii la ñu wax l'observateur ne ko dañuy dem sax ba di reccu naka lu ñu juree doom ba ñu màgg bay nekk ci yoon wu bon wii ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm